C'est assez équipez-vous à petit prix. Oh royal, bour ndox ak pënc rek teraanga fi la Liberté 1 face Stadium Marius Ndiaye Umbidiko, the best. Sen Gold. papa da ngay fot ni wayo lol diir na koy téré limay def ni wala da ngay yaakaar ne lépp rek jigen ak wara def amuñu dara jappal suñu jabar. papa li ngay def ni mom rafatou ci gis mom moom fot kat sax moko gën. Kan? sa yaay moo ko nan lay def han né ni ma waron ci fayé fot kat jëndalee takkaay moo ko gënal. baax na maa eh, eh. yow foo génn jëm ni yow xadi xanaa nga na mu ñew yoof di ma ziar ci yow dëkk dafa tàng. gars man la fodi sa di interpréter rôle Bakir cham di tawu njuga di baye goné gile ni ma def nak ba dugg ci série bi modou ñoo nam suma neexaay man nar leen ko fas yéene jox ba mu mot sëkk. ñi nga xam ñun ngeen di top, bu leen baye dara ñoo ngi ñew te bu ñu ñëwee rek di ngeen xam dal nañ ci kaw. ko eh, eh, eh. fóot ba tay lan ngay waxtu ak kan ngay waxal. na bu ma 5 millions de followers lay waxal te yow sa da nga war ñeu dugg wax len yow la kan. ah bon loolu dina ma neex sama gaay man may jena ba saw interpréter rôle bu Guèye di xolu taw djegu taw ah go bi jitu ci kër gi macha allah man jëkëram mom jëkëram man mi la di diriger di traiter bu Nabou na bu loolu nga xew kan ma ko laaj. yow waxuma la woon bu ma dog yow. waaw ah, maa ngi jégalu wax leen sa personnage noo ko yëgee. waa sama personnage nag ni ma ko yëgee mooy dama joué woon déchéance macha allah kii bind série bi gis ma ci sentir ma woo ma casting ma jàll bi ma jàllee macha allah ma ñëw nag fas yéenee nekk ci kër gi xolu taaw ma nekkee xolu taaw di diriger te nag duma nangu benn xale di ma yab. fi ngay dugg yëpp tam bu fa bu fa dem nag yow tam nag. yow ya, waxuma la woon su may wax bul ma dog wala yow doo dégg yow. yaay. eh li ma da nga am ci lii kàddu yow. eh du ma morom. bu ma ne yaay ah dégg nga li ma la wax te bul wax ak man waxal ak ñii bañ ne la da ngay génn télé ba tey ngay tëggal say xott. wax leen yow la kan ak noo duggee ci série hello people man la Mariama Salam di interpréter rôle Khady Thiam. oui ma wax leen sa personnage lan la. bon mon directeur de casting Marodi moo gis mon profil Me proposé ma casting Ce c'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup de profils pour mon rôle mais ma a de confiance comme sama mon ba Bataille, je suis là. rôle Khadijam, que je m'y vois un peu jeune ambitieuse courageuse ça c'est moi Belle partie bi Je dama leen découvrir le ko Bob parce que ce deful entre temps je ñaari waajur yi ma yàlla doom bu ki deful rek jàmbaar nga te gisagoo leen sama mag. na bu wàññi yëg yëgatuma sama put bi. je m'en moque da nga war a dee sama yoon nekku ci loolu yow. juga caama ñi ak jaarale ban juga caama bàyyi li eh. ma ne nga jaar eh jaarale yow yaay li ngay sama moom sama moom yow eh, bàyyi li ngay def sa morom yow waaye yow déglu ma yow déglu ma eh yow eh yow lan ma sa yoon sama wax sa yow lan ma sa yoon eh boo foo doore bàyyi sama loxo yow jaarale yow bàyyi ma yoon bàyyi jàllal bàyyi ma jàllal eh, eh yow jàllal nga may sax pare matinée nii jàllal waaw yow ku xamadi nga sa moroom yaay di seetaan tele ngay changé nii rek. nga gis sama der sa télécommande bi. pour yow li nga def xaw ma ko sa téléphone bi nga jël remettre ko ak télé bi. man nag ndëkk yi tante dafoo de dama sa xel. gis nga yow dama lay ñuus léegi. ah ah ah Jojo lu man dama fi jur ko ñuy ñuus. te bu mu yegg am nga chance nag bu yeggoon ma baxal la ba nga tas fi nga toog. ah di sot. yaay ak doom yéen a coalisé wu noonu. man sama sëkkër sax su may sëkkër ngay coroxaan asama naa ak sama yaay. waaw bébé. moom. tas fi nga toog. la jabar laay la. Eh, moo xew. yéen ñi si tànn nag laay waxal. lu ngeen a jàpp féetewoo maanu ba tey baax na lu ngeen gisee ak man la da ngeen toog seen néeg ne pat di seetaan seetaan leen. waaye bu ma fi dóore nit ba mu tas rek lu ngeen gis man la. ñaw sama man la Khady Gueye di interpréter le de Awa Cheikh Pène di jabar ci sa Thiam ni ma intégré projet bi nag euh, casting la rek. comme tout naturel après trois séances bu weesoo te mën suis di ma ko tàmbaleeg léegi ci laa doo gis sama naqaru xol ci àddina ndax lii <laughs> kon yow am nga lu lay naqari yow di nga yëg metti man loolu mënuma koo gis parce que amoo jom boo amee lu la metti da ngay grève de faim war a nga xaru dee ñu xam ne am la metti suis sama papa lu muy def sama yaay neex na xol lii moom ku mu ko ku ko commentaire ma xam ne complice nga ko mboor jóge de séance daal di ñëw fii kër Babel tudd fi bu sa caam sama làmmiñ damul sama poos ah nu ma koy dëbbate ba mu mel ni soble daa toj mbaari fépp tas foofu lu la neex nga daan wax te dara fekku la ci waaye baa xam nga ni du demee noonu fii kër Babel. man may diriger du nabu du fa mam Diarra Diop la puissance deux de son mari ki jëkkëram bëgg ki jëkkëram tànn ki jëkkëram valider ah bébé exactement noo ko bëgg waxee ak noo ko sentiree ak noo ko waxee rek noonu la man la sa Sadikh am sama tour dégg di Adama Dieng rôle bi ma jox nag di rôle bu ma neex trop parce que dafa bëri ay réalités yoo xamante ni dafa ne si biir kër yi ñu war ko génnee teg ko si table bi bokk àndandoo ak sénégalais yëpp leeral ko ba mu leer naññ ndax yaakaar naa fii la lépp di xewee. <laughs> incha <laughs> mais nag xam nga lan la gis nga nag daam loo xam ne dañ koy fàtte muy ki nga tànn bëgg ko ak ki ñu la tànnal du benn ah. loolu la télé comprendre te loolu il faut nga xam ko papa nga baal li baasi cër la ma yow réew nga de sa bay toog di wax soxla nga ñëw taxaw naa ko papa baalu la bu may waxati sama ba nga dugg si di nga xam yow ku xamadi nga xalé bu xamé di moom neex naa la jëm. yow ya dama lay ba way ci moom mais. gis nga delloo ci bi gis nga ko lii ma sa liggéey suñu waxé ngay jaay ya sida ak di selal li si yow lañ ko gisé yar xale bi gëna yomb mëno yor sa lamine fu nga tofa di wax yeen nak lay waxal ki ku ci mbokam wala nga xam fo mëna jaar ba jot ko. nek na gën sama 18 sinon dina ko ray hmm. kontaan lii de la bëgg bébé na cër. Amar loo comprendre fi c'est si xam nga sama problème papa yi man affaire yooyu yomb yoy gisoo gu comme ay toto tàpp paate ay mir yooyu non amax tu es un élève de terminale et tu me parles de pâté, tape, toto, tape. c'est ça le problème. Là. Yo, est je me un niveau Socrate, niveau Molière. Avec mon pour te dire vrai, ce que je veux dire, c'est que je veux dire est-ce que tu me libérer ça je <sighs> Omar, dans la vie, il faut toujours savoir choisir entre la raison et l'émotion. Quand j'avais ton âge, j'avais vécu au barème de Socrate. Et pourtant, je prenais mes corrections. Et eh ouais. Non, cette fois-ci, je me barre quoi. Parce que les conditions, je suis désolé. ma santé avant tout. waaw. Mariam Thiam xaw ma géej gi foroxal xaw ma géej gi Tamba Dieng xaw ma comme fumier lay jaay xaaral. waaye Tidiane. Ah, yow sama livre bi livre bi ma doon wax noonu. waaw foo ci tool. du livre live la. luy loolu. mooy wàllum publicité jaayum jën bi. ci internet bi té lool sax amna lu ko gëna gaaw. lu ko gëna gaaw gaa ma ci ma xool. xaaral ma tapoté la wax lay tapate laay sa yépp ay jaar dem na waxal ak ñoom. ku may waxal. ya ñi lay sétan ya ñong ñong may sétan ñi lay sétan kay waxal ñu ni waxal. légui nak ma ngi nuyu ñëpp man la Marème Thiam yor sama jën diko jaay yeen jigéen yi nga xamne nak nag rek yéen togg di yek lay waxal ma ngi ni tek sama table bi di jaay sama jën jën yu baax. yéen ñëpp def leen seen commande ah ñu jaay leen ci jëni léegi yónnee leen ko ngeen jot ci góor ñi nag yéen ci ngeen ci ngeen de bu ci kenn am kersa ku bëgg jën bu baax rek ñëwal ci man ma jaay la ko ah léegi nag yow waxal. man la Ousmane Fall di incarné rôle Tidiane Kassé ci série bi di doom si Marème sama yaay ju bëri affaire bi li ma gën a neex si rôle bi nag mooy point en commun yi ma am moom mooy ci wàllum fighting bi. ci wàllum gëm sa maa ngi leen di yow jaayal ma samay jën ngay jaay sa bopp. yaay dama wax ak nit ñi. doom doom ak yéen nag yow tamit. waaw ah, waaw sama jën ba pare. ma xem. Ibnu Thiam may ma. waa man la Marème Thiam nekk tut sama tur dëgg di Ndeye Tuuta Njaay may jaay jën damaa jaar nag laay jar laa njëkk a ma jaar laay jar a na de ma jaar laay jara mu toj ma daal def de da di nak ñu woowaat ma kasin ci di ma ñëw def furu bi tam ko loolu bëgg ko muy jaay jën fi ci buntu kër ci sama buntu kër baay Di kenn ini ma fee teree jaay jën. maram waroo won wax loolu li day wone ne muso kër gi suñu kër baay la loolu gëna moko xam ta faté wu moko mais sa xet gu bon gi fay yak sama méditation te ñi kay jaay ni xet yu bon bu frox bi rek mëna leen dawlo yow nopil yow lan motax nga soxor lan motax nga iñaan ibnu tams ana xet ak fan nga gis xet yow ya ma topé mboro way sa bess di melni ni bodi lan la limay waxati moy ni xet ken duko ko gis dañ koy xencu mañu suñu jàmm sama client nga may dàqal du lol nga jokté pour bëgg dak sama client li bay njugo da koy dégg day lijeenti sama papa mom day lijeenti li ci tel ndax yow sino ma yow rek nan rayante ci kër gi madame lolou fabrication la comme disait Padlon C'est la marque d'un vrai philosophe que le sentiment d'émerveillement. Bref, je Toudou Serigne Matar le rôle de Ibn Thiam Dom du philosophe de service celui qui vous pousse à réfléchir à douter à te surpasser ne me parlez pas de sentiments pas d'amour parlez-moi des chiffres et des lettres plutôt la science C'est bi ni ma ci bokkee casting la am Mborodi à la réflexion

maa xalaa defoo dara ci li ma lay déggal te da nga war a dox ci samay waaw. mais ben, xam nga ne yow lépp loo ma wax dama koy def c'est juste que ki may joué nii tey daf ma yàgg sonal tey il faut ma kañal. baax na ba mu sotti <laughs> waaye yow. Ah. ñàkk nañ kees de <laughs> suñu gan yi dëpp boobu ba tey faale wuñ leen. yow yaa ñàkk kees yaa war a wax ak say gan. hello people je me présente je m'appelle Nefertiti Sow et j'incarne Fat Bintou Ndiaye dans la série Babel alors. Fa est un personnage avec qui j'ai beaucoup de points en commun. Elle aime être entourée de sa famille, de ses amis, mais aussi de ses ennemis, pour pouvoir se payer leur tête. Elle est de nature très complexe et c'est une peste. Hmm. mais les gars, ils que les gars, ils série Marodi. Ah, lolo. <laughs> Alors, pour la série, directeur de casting B, on m'a contacté, mon m'a fait ma le test et euh, j'y suis allée. Moi, jouais plusieurs facettes. Après, nous avons Ok, quand vous jouez Non, lol, mom, duma len ko meuna wax. Dama len di bay découvrir le ko sen bop. Bé, ben, lol yom na torop. Bon, sama moi. Moi, c'est moi de Donc, j'incarne le rôle de Khalil Cham. Donc, Khalil Cham, c'est moi. C'est comme si je Bindal. parce que dama koo casting ay weeri weeri weeri weer ba dama dem ba maîtriser personnage bi donc Khalil c'est un peu moi en fait euh, góor bu joŋee góor bu mën a toppatoo jabaram ah góor gu mën a wax bu neex te gars yi dañu foog ne joŋee ci jigéen lañ ko xamee déedéet góor dafay joŋe ci jabaram te man Khalil Thiam damaa joŋee. bien sûr joŋe naa wala joŋe. joŋe na. très bien gars yi Khalil noonu affaire oto bi. naa après <laughs> ma jox sa gaa léegi laa koy réglé. dafa mel ni sa doom jëla dàq bés de. kontaan ah yow déggoo sa kanam laa ko waxee. yow yaay sama princesse. xam nga ne tey ah gan bu rëy sax ah kon salaamaaleykum internautes yi salaam. papa <laughs> do defaraat sa eh, yow man ñi lay suivre sa sañse. <laughs> Ma fi sa loxo neex na nuyu naa leen ziar leen maa ngi tudd Moustapha Ngom di interpréter rôle sama soxna du ma mës sori baax ci man gën ci man. waye ki doon bës sama tank nak ah kooku moy sama xol kooku moy xaritu papam di Layla princesse Thiam euh, rôle bi nak challenge la won ci man challenge dans le sens soko ko moy da fay laaj recherche mais aussi ak liggéey bu set wetch pour interpréter rôle bi ah faaw nga doon acteur bu mag mais nak dang ko wara a té pour nga dund ko faaw nga doon teug mais dëgg bobu nak nek ci sa bir xol c'était pas évident ndax euh, temps bi xatoon na lol té programme yalla rek moko mom ndax lepp yemboon na pour gaay tourner waye yalla ñëw ak ndogalam ka waroon a interpréter rôle Ndiouga Thiam am nattu bu ko dal lolou motax ma gëm ni man mi la té ma nanguko nak ma len di wax ni ah man Alaaji Ndiouga Thiam ak wa Babel dinañ jouer mais nañ jouer la waale aussi suñu nawle boobu nga xam ne moo waroon a jouer te nattu dal ci koom ah Layla da nga arrêté. waaw ah, dama doon concentré wu rek. d'accord. donc salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ko sama papa waxee maa ngi tudd Aminata Kébé di interpréter rôle Layla princesse Thiam caatu kër gi. la plus chouchoutée de la famille réew ba dof nëb mais non donc du coup bi may euh, dugg ci euh, projet bi par casting la duggee scénariste bi woo ma téléphone fekk daf ma gisoon si euh, série Mbetteel sama jeu d'actrice ko par la suite ma ñëw def casting bi jury bi approuvé xam ngeen rek bëri caprice Non, la un moment princesse de la famille. Iya, man ci princesse bob <laughs> te nga xamné reine ren baa ngi nii toog sa reenu papa. Mhm. di len wax nak man la Yaxara Njaay di ñeño bala mañ sa teug dawal noir diplôme yi la ko tontu ñu daldi may o nak ci li nga xamanteni dama ko bëgg ndax man sama dérèt deretu ñeeño la may interpréter nak euh, rôle mama um muy bala mañ sé te bala mañ sé ku ko xam xam ko ci jom fulla fayda nangoo liggéey te mën a teralaate casting bi ni ma ci duggee scénariste bi moo ma woo fekk boobu maa ngi joué ci Karma mu daal di may woo expliquer ma scénario bi ma kontaan ci ñu exposé ma scénario bi ma daal di koy xool xam ni lii kat sama vie la lu may dund la ci lu ma nekk la ma daal di koy valider ci saase. loolu moo ma indi ci Babel Demba Thiam. allo. Afa. góor gi yitte woon naa la de te il ñu wax. Faa day xaar ndax sama soxla moo sut bosam. maa ngi lay dégg bu baax. nit moom day xaar waaye jën yi xaar du ko def. fa dinaa la woo après dama bëgg ngeen dal dal leen te xam ne yéen ñëpp dinaa lijjanti seen problème waaye nag faw ñu saytu ko te dafay laaj taa xerlu deng ma am problème yépp fii ci Babel lañ koy lijjantee te nag soreetul waaw. mais maam balaa loolu may ma ma wax gaay ni ma dugg see si kër gi. Mhm. affaire yi maa ma lijjanti de mooy waaye jooju noonu xaw ma metteur xaw ma di bind affaire yi. voilà moom laa contacté Instagram. mu contacté ma moom tamit en retour woo ma ne ma dañuy def casting mu nekk cee teg nga fa jeexal ma ñëw forcer sama bopp si kër gi par la force moom may imposé ay affaire bac ay kaye bi mais man pro Arabie Saoudite laa yéene sama bopp xaalisu naari foog ma lekk si muy leer. yow yaa far sa kër gi yow. kon gars yi ñoo ko déggandoo lépp fii lay xewee ci biir Babel. mois de septembre ak Babel.